salaamaaleykum suñu mbokk internet Leuz TV tey nag ñu ngi fii ci suñu deuxième numéro spécial Saint-Valentin tey nag dañoo seet ci kii di Maria dañ leen di bàyyil ngeen xamante ak moom Maria yow yaay kan alors euh, asalaamaaleykum d'abord euh, ñi faral di euh, seetaan saa su nekk euh, Leuz TV di nuyu internet yëpp alors Maria moom journaliste la chroniqueuse la blogueuse la Et euh, général, je donne des conseils et astuces euh, dans le de la séduction, la vie de couple ou bien la sexualité. Cela dépend. Voilà, Maria, tu es sur numéro spécial Saint-Valentin. On voudrait bien parler de tout ce qui est Saint-Valentin. Donc, tout ce qui est astuce, tout ce qui est conseil euh, pour la Saint-Valentin. Euh, Qu'est-ce que tu penses de la Saint-Valentin Quelle est ta conception de la Saint-Valentin En fait, euh, la Saint-Valentin, comme vous le tous, euh, c'est la fête des amoureux. Et ça se euh, année le 14 février. Mais bon, ça se fête depuis euh, l'an 270. Donc, euh, ce n'est pas maintenant. Je pense que en tant que des amoureux, C'est une occasion pour les personnes qui s'aiment, que ce soit les couples mariés ou non, une occasion de raffermir leurs sentiments, de montrer à quel point ils se tiennent l'un envers l'autre. Mais aussi, c'est une occasion pour les amis, pour les parents, de se faire des cadeaux et de se faire plaisir. Donc, euh, quand on parle de fête d'amour, c'est pour tout le monde. Voilà Maria, quand on parle souvent de la Saint-Valentin, fille du Sénégal, on se dit que Euh, la seule chose, c'est se donner entre nous des cadeaux. Et qu'est-ce que tu penses de cet acte Euh, c'est bien, c'est bien de se donner des cadeaux parce que quand on prend un, un cadeau et qu'on le donne à quelqu'un, c'est parce qu'on tient à la personne. Mais euh, il ne s'agit pas tout simplement de donner des cadeaux. On peut organiser un dîner en amoureux, on peut faire des sorties, on peut faire des balades, on peut même faire une demande de mariage le jour de la Saint-Valentin. Donc euh, c'est tout un ensemble de choses que l'on peut faire le jour de la fête et ce n'est pas simplement donner un cadeau. Donner un cadeau, c'est un geste parmi tant d'autres. Il y a certains qui s'écrivent des lettres parce que avant la Saint-Valentin, c'était une occasion d'abord pour se faire des vœux d'amour. C'était ça la première vocation de la Saint-Valentin, de se faire des vœux d'amour, de s'envoyer des lettres et de se dire à quel point on s'aime. C'est euh, avec le temps qu'on a accompagné ça avec le chocolat. euh, pour des raisons bien particulières. Ensuite, euh, les roses rouges ont suivi et les cadeaux. Et au fil du temps, c'est devenu une, euh, comment dirais-je, dafa doon aada dafa doon doon aada du Sénégal kese mais c'est partout dans le monde. voilà donc euh, mën nañ mën nañ ne euh, mën nga def lu nekk pour mën a fêter Saint-Valentin l'essentiel mooy nga bëggal nga bégal ki nga nekkal. voilà en tant que blogueuse dañuy gis ne euh, si sa si sa sa sa site bi tout ça da nga fay lancer ay messages des astuces des trucs comme ça maintenant qu'est-ce que tu prévois pour la Saint-Valentin quel message tu dois lancer aux jeunes aux jeunes mariés euh, aux jeunes célibataires alors euh, li ma leen di wax mooy nañu bëggante te en général ay nit bu ñu bëggantee ba pare wala ñu nekk dañuy fàtte ne chaque jour dañu war a séduirante seen biir dafay dem ba day am lu ñu naan routine ku nekk li nga doon def ngay de di def doo jéem a innover doo jéem a def lu bees donc li ma leen di ñaax ci Saint-Valentin bi moo ñu profiter ci occasion bi pour euh, firndeel seen mbëggeel indi ay feem yu bees indi ay astuces yu bees que mu nekk góor que mu nekk jigéen mën nga propos mën nga profité ci Saint-Valentin bi bu fekkee góor nga nga daal di offrir sa chéri benn voyage ne ko nañ dem à tel ou tel endroit. parce que fii Sénégal am nañ fi les îles du Sine am nañ fi Ziguinchor ce sont des destinations touristiques yoo xamante ne sénégalais dañu am tendance à l'oublier alors que neex na nga ànd ak ki nga bëgganteel ngeen dem découvrir d'autres régions ensemble il y a de beaux hôtels au Sénégal ah bu fekkee ku jigéen ki mën nga def sa benn dîner romantique ah defar defar defar sa lekk yu baax defar sa jus yu baax ah daal di xaar sa alaaji mu dee di wàcc ngeen sortir un peu de la routine def loo xamante ne tàmmoon di ko faral di def ñuy faral di séduirante ñu bañ a fàtte ne que c'est parce que nit ki dafa nekk ak yow c'est parce que nit ki dafa la takk c'est pas que nit ki dafa am relation ak yow que ak kii la saay boo yeewoo suba teel war nga def loo xamante ne nit ki dina la gën a bëgg dina gën a xam li tax mu tànn la du am réccu te loolu. da def le tout pour briser la routine ci biir couple parce que routine baaxul ci couple voilà loolu laa amoon comme message bu ma doon lancé par rapport la Saint-Valentin. mais à part ça si astuce nga évoqué noonu tout de suite comme ça il y a des trucs de lingerie des trucs comme ça maintenant euh, quel conseil tu donnes euh, en tant que mariée qu'est-ce que tu donnes comme conseil aux jeunes mariés comme toi. Euh, xam nga lingerie dafa nekk loo xamante ne man jàpp naa dafa bokk ci jigéen de manière systématique boo xasee ba marié rek. war nga am ay lingerie yu baax même en tant que célibataire pour ton simple plaisir ton plaisir euh, personnel war nga am ay euh, lingerie yu rafet war nga jënd si ay soutien si ay slip yoo xamante ne yow boo ko xoolee rek dangay am bànneex muy pour toi-même léegi boo fekkee ne da nga marié te mu leer na la ne am nga ko lee gis ku dul yow donc foofu boo doon def un da nga war a def dix donc war ñu profité juste si jour Saint-Valentin pour jënd ay lingerie dañ ko war a def chaque jour. jigéen dafa war a war am armoire lingerie wam ce n'est pas seulement pour la Saint-Valentin parce que man jàpp naa ne même bu fekkee ne sax célibataire nga war nga am lingerie yoo xamante ne yow ce sera pour ton plaisir personnel saay boo ko xoolee da ngay kontaan léegi nag boo demee ba marié te mu leer na ne que léegi am na ku lay xool boo doon def un da ngay def dix jigéen dafa wax am armoire lingerie wam am tiroir boo xamante ni dafa am ay lingerie léegi lingerie bu nekk ak euh, occasion bi mu àndal te comme que dañ ñëw si Saint-Valentin xam nga foofu lingerie fine kon fa la gën a war a mën a am astuce et comme les couleurs de la Saint-Valentin c'est le rouge le blanc le rose hmm, léegi c'est une occasion pour nga génne genre lingerie yooyu noonu bu fekkee sa jëkkër dafa am benn lingerie particulière boo xamante ne moom la gën a bëgg tu veux profiter de la fête pour le sortir parce que góor bu nekk ak li koy daaneel c'est vrai que dañ ne lingerie même ñoo xamante ne becc moo leen di gënal am na ñoo xamante ne slip moo leen di gënal d'autres boxeur moo leen di gënal donc yow war nga xam li nga xamante ne sa jëkkër loolu lay laaj jour Saint-Valentin nga daal di ko def bañ a topp seulement la masse gis ñëpp que dañuy sol lingerie infirmière déguisement infirmière déguisement policière léegi yow nga ne le jour de la Saint-Valentin tu vas sa no non gëstul xam li sa jëkkër bëgg lu mu soxla ci biir néegu sëy bi lu mu soxla ci biir chambre à bi nga daal di ko jox ma loolu laa jàppee lingerie des fois même tu peux être toute nue c'est la plus belle des lingeries. te kon bu fekkee ne sa jëkkër loolu la soxla tamit tu dois sauter pour l'occasion defaral ko loolu noonu mu bëgg Voilà. Donc, dans tout ça, on peut dire que pour les mariés, le sexe a une grande importance le jour Saint-Valentin. Euh, non, je ne dirais pas que le sexe a une grande importance le jour de la Saint-Valentin. Parce que la Saint-Valentin, c'est d'abord l'amour. Et l'amour ne veut pas toujours dire sexe. Sexe renvoie plus à désir. Amour n'est que c'est d'abord les sentiments. c' est pas obligé que mu am sexe wala wala affaire demee noonu parce que mën nga fêter la Saint-Valentin alors que tu es en état de grossesse am na avancé par exemple am na yenn yoo xamante ne tu peux pas le faire ou bien que tu es en période de menstrues y a certaines choses que tu pas le faire donc Saint-Valentin c' est d' l' amour le sexe c' est un bonus dans un couple li ñu naan nii du ceeb ba chaque jour nga war koo lekk loolu réalité la voilà dafa nekk loo xamante ne bonus la si biir couple daf koy neexal. mais couple bu basé wu si sexe rek bés bu sexe ñàkkee ku nekk da ngay jaar sa yoon donc li ñu war a suqali si biir couple li war a nekk base couple li nga xamante ne moom la ñu war a mettre en avant dans un couple c'est d'abord l'amour c'est les sentiments et le sexe vient par la suite Voilà, au-delà des mariés, ils sont célibataires, donc ils se demandent aussi de l'autre côté qu'est-ce qu'ils doivent faire pour la Saint-Valentin. Euh, man, je conseille aux hommes sénégalais de profiter de la Saint-Valentin pour man loolu laa leen di wax parce que xale jigéen fu mu toll nii ñu bëgg a jëkkër bëri na Sénégal sedd na jamono ji ñu toll nii nekk fi célibataire xaw na jafe loolu bu fekkee ne am nga koo bëgganteel te mu leex na la nekk c'est une personne boo xamante ne wóolu nga ko am nga espoir ci moom profité wal si Saint-Valentin bi indi ko sa bague tu vois indi ko sa ay rose rouge indi ko benn peluche indi ko chocolat hein daal di ko ñëw demander en mariage je pense que c'est le plus beau cadeau de Saint-Valentin qu'un homme peut faire à une femme alors euh, pour les femmes le choix est large c'est vaste il y a les montres personnalisées, il y a les coussins personnalisés, il y a les tasses personnalisées, hein, il y a des chemises, les cravates, les caleçons, il y a plein de choses euh, qu'elles peuvent offrir à leur homme. Nous avons chaque jour. nit ki daal li mu gën a bëgg fekk ko ci loolu nga may ko ko comme cadeau de Saint-Valentin nga daal di bul fàtte tamit innover def lu raar loo xamante ne du ko faral di gis voilà man loolu laa jàppee euh, comme but de la fête quoi se faire plaisir. Euh, voilà Maria, si, si sa page Facebook, on a vu que tu as posté quelque chose, donc euh, un événement pour le 11. Euh, Qu'est-ce qui est prévu pour le 11 En fait, euh, le 11 février, euh, en fait, je, je suis là-bas. Je ne suis pas l'organisatrice en tant que telle. Je participe en tant que coach en séduction. Donc, euh, je vais donner, euh, comment dirais-je, je, je, je, ne dirais pas un cours, parce qu'on ne peut pas donner en tant que tel un cours sur la séduction, mais je peux donner quelques conseils ou bien quelques astuces sur la manière de séduire un homme. Donc, ça va s'intituler 30 conseils pour séduire un homme. Alors, c'est ce que je vais exposer le jour euh, de ce bal de séduction qui est organisé par e-Priorities et Mamdou. Il a aussi d'autres partenaires, donc euh, ce sera une occasion pour faire de la vente, détente entre femmes. On va apprendre euh, non seulement l'art de la séduction, mais aussi les techniques de massage. Parce que xam nga massage dafa doon loo xamante ne dafa am importance ci couple parce que dafa am yoon mën nga bës gaañ nit ki mën nga bës def nit ki loo xam ne waroo ko woon def donc jigéen dafa war a jàng nu nañ fi mais neex na ki nga bëgganteel mu defaral la donc dinañ joxe ay cours de massage dinañ joxe cours de séduction dinañ joxe dinañ def vente euh, lingerie ay euh, comment dirais-je les senteurs les parfums il y aura plein de choses euh, qui qui seront faites le jour du bal de séduction. Voilà, à cette occasion, vous invitez qui? Les mariés ou les célibataires ou... J'invite les femmes. J'invite les femmes, tout simplement, les femmes qui sont amoureuses d'un homme, les femmes qui veulent faire plaisir à un homme, euh, mais je préfère que le plaisir soit légal. c'est-à-dire les femmes mariées maintenant les célibataires euh, elles peuvent juste venir li ñu naan si wolof das fanaanal mën nañ ñëw pour def das fanaanal prendre quelques conseils quelques astuces denc ko si seen biir agenda quant aux femmes mariées après bu ñu demee ñoom mën nañ appliquer voilà man famille laay woo de manière générale toutes les femmes sont Euh, voilà, Maria, on te remercie beaucoup pour, pour nous avoir accepté, pour nous avoir accueillis ici. Euh, voilà, on te laisse euh, dire un dernier mot à, nos chers euh, internautes. alors euh, internautes d' abord je remercie Leuz TV pour le déplacement parce que euh, mënoon ngeen leen si bañ a fekk donc c' est à moi de vous remercier pour l' opportunité que vous me donnez de parler de moi de mes activités et je remercie aussi l'ensemble des internautes de Leuz TV qui vont nous voir nous écouter euh, et je vous souhaite à l'avance une euh, excellente fête de Saint-Valentin n'oubliez pas de vous aimer parce que je pense que l'amour c'est la base de la vie sans sentiment on ne peut pas aller loin que l'amour de la famille l'amour de nos amis famille, l'amour euh, de notre amoureux. C'est un sentiment qui nous pousse à aller de l'avant, à, à, franchir les frontières et à donner tout le temps le meilleur de nous-mêmes. Donc, euh, aimez-vous sincèrement, en toute franchise, et euh, ayez confiance euh, l'un envers l'autre, car la confiance et la communication sont la base d'un couple qui peut durer. suñu mbokki internet Leuz TV maa ngi leen di jaajëfal di leen di jox rendez-vous su suñu beneen émission spéciale Saint-Valentin merci beaucoup